Père maa ngi lay nuyu di la bu baax a baax. loo tànk yi ngeen fi ñëw yàlla ko def tànk tuyaaba la nga ma laaj nag dinaa ci sawar wax ndax Balla gay najaayam laa kii mooy suñu mag mooy Ndiaga saar moo ñu yar ak Aliou Seye ñu nekk depuis walla ba ñëw fii kenn mos leen atte Ndiaga toog Balla Gaye toog wala Aliou Seye mosul am Balla nekkoon nit ka xam ni dafa dafa daan dajale. dajale la mënoon nekk ci écrit bi xale bu mu jis nga am jëmm mu jël la indi defar bi ci Elton kii moo ko jël indi ko pour forme mbër yi pour ñu am na yóbbu seen waa waajur ku baax dem na Balla ku baax dem na du xeex du xuloo loo du problème loo xam ne du problème moom dafa daan dajale dajale la mënoon di defar kon nag yàlla mu ko fi indi woon moo ko yóbbu ñun ñëpp dañuy dem. ñun du ñuy dem ku fi jóge yàlla ñuy toppatoo sa gannaaw balla fu mu ji mais la ko dàqal fu mu jógee yal na ko yàlla xara àjjana turandoomeet maa ngi koy gërëm dëkk sant fa sant di yem ndax am na lu ñu baaxoo woon bëgg ko def dafa ñëw mënuma loolu ñu ko arrêté lépp li ci war ñu ko wax mu def ko kon nag ñoo ngi sant yàlla moom Umar waaw ndax daan def ku génn àddina famille bi Balla Gaye numéro 2. numéro ku génn àddina dafa am lu famille bi daan def ñu dajale ko dafa ne bu kenn def dara bu kenn dajale dara lépp lu ci war lu ñu ko wax dana ko def. ba ba ñu koy yóbbu Kamb Kambureen kaar yi lépp dafa jël lépp teg nee daa dafa la ci nit dërëm lu ci war dana ko ciy def ndax turandoom la woon. sonoon na si moom jàppale woon woon comme que dem na nag bàyyi ko fi nag lu war si gannaawam dina ko def kon maa ngi koy gërëm di ko sant moom Umar lu Umar leen di woon yàlla kam am lu ko ëpp. yal na ko yàlla fal cet waaw kii nag mooy magam ñoo bokk dëkk ngeen wax ak moom mooy njaga Sarr waaw moom moo ko yar waaw jërëjëf maa ngi leen gërëm di leen sant. Dame ñu ngi lay nuyu euh, yan témoignage mën a defal ci aji ku dem euh, ngi leen di fay man naa ne kii ngeen may kii kii ngeen di ma laaj kooku defe naa ne romb na maa xam romb naa xam ndax Balla kii mooy kii mooy nijaayam de. mais yeggoon na ma xam ne nun noo gën a jógee ndax li gën a joge mooy ñi bokk métier rek ñooy ànd bu dee mécanicien ya bu dee chauffeur sax bu dee mbër la sidokaay yi ak ñëpp daal ñoo ñoo ànd bal magam ki mu bokkal ndey ak baay di jaaji nduur mu nga du ball gay ball nduur la ñu bare sax réer nañu loolu yaa ngi dégg jaaji moomu laa maaseel ak Aliou Seye mii noo bokk benn année digoo tool yaroondoo ball su mën naa ne takk soxna moo nu tàggale ci lal bu daan fanaan moo daan bokk benn lal bu daan fanaan moom kii kii témoin loolu kii moom bul seet tutaayam bi de mais témoin na loolu noo ko mag nag mais nag euh, gone bu loxoom setee mu bokk ak mag tàggoon ci dara nag tàggoon ci lenn lépp lu nu fekkee rek fekk na ko moom mi tey bàll nu bokk déparé waalo di bëre ba nu ñëwee Ndakaaru di bëre bu nuy bëree sax bàll bërewul Balla bëriwul Balla boxe la doon def alsaan mii xam ne ki dara moo kii ñoo bokk benn pàkk kii tey ñoo bokk benn pàkk yaa ngi dégg Balla di boxe nun nuy bëre man ak Aliou Seye ak Mohamed Ali ak Daouda Fall ak Ali yaa ngi dégg nuy dem ba mujj nag euh, miiru làmb dugg ko tayet booba naka jekkat awaa ah, muy naka jekkat bëree na waalo mais bu mu ñëwee ndakaaru bëreewul dafa doon def box mais teewul nag comme que bëre bi mën na ko te boo yeewoo ci xeex ma boo xasee man rek da lay ci làmb moo tax mu mu duggee ci làmbet vraiment da ci teel a réussir ndax mënoon na bëre ba pare léegi nag su manee xeex rek bénéficier mbër mi ci xeex man ko bénéficier loolu la demee sax ba ba ba bu mu bàyyee bëre sax téye xale yi Balla Gaye 2 les 2 Elton pépinière bi daal xam la wax xale yooyu tey ñoo tekki tey xale yooyu tey ñoo doon tey sampiyon tey léegi nag xale yooyu mu téye woon nag ndax métier bu mu yoroon ci boxe bi te mbërum làmb moo yor te euh, mëne woo box dóor doo dem ndax soo mënee bëre te mënoo xeex doo dem dangay ngay mën bëre mën xeex yi ci des moom ay jàppale rek la xam la loolu yëpp mu def bi yàlla def sax mu réussir jënga li gàkku wax léegi maa gàkku wax na dëgg dañuy am assemblée générale ngañ jaan jël parole ni Balla Gaye mii de ku sonn la ci xale yi tournoi boo amee day dem ànd xale yi ba fanaan àll kon war nañu ko mën a daggal bee mag Malick gàkku nii dana dem ren màkk nii rek la Malick Gakou waxee ne dana dem màkk daggal ko bee màkk samedi jot nu jël dix seize yóbbu ko pàkk ba Malick Gakou ñëw fa mu ne kuy dem màkk war a yóbbu bor dindi quatre cent mille quatre cent mille dolli ko Balla Gaye deux mi ñëw dindi un million dolli ko kon sunu màkk ba aw sunu màkk aw na yoon yaa ngi dégg mu dem ak jàmm ñëw ak jàmm keroog bi ma ñëwee ci kër gi fekk ko ci siyaar ko. ba ma génnee dane ma xool xar mi ma Omar yeewal Balla Gaye de xar mi mu ko yeewal muy laadu ma ne ko Balla Gaye xamul sax boobu xar mi lan la ma ne ko kii laadum la mën naa ni xale it Balla ñoom ñëpp teggoo muy les yëpp teggoo ngi seen loxo ci Balla Gaye vraiment yàlla def ñu juboo juboo bu ànd bu rafet Balla nu ànd ànd bu rafet nun ñëpp daal yàlla yàllaa nu boole daal nu bokk benn penc xam nga nit bi ngeen bokkee benn dëkk yarondoo amu leen benn jafe-jafe mosu leen ba nga xam ne ka soxna rek moo leen tàggale ci lal bi ngeen fanaan kooku ànd boobu neex na. mais yan yan kañ ngeen mujjee gisante yéen ñaar. Ah, mi ngi bëgg yàgg nag. mais nag noo ngi déggante. yan kàddu ngeen mujjee déggante yéen. Ah, kàddu jàmmante rek waxtaan ak xam nga kàddu moom waxtaan la rek waxtaanu biir moom. waxtaan la rek ndax nun dama la ni la dama la wax jaar jaar bii nga xam ne boo fa jaaree nit ki li ngeen mën a waxtaanee waxtaan lay doon rek ndax jàmm nga fa loolu rek la demee ba tey jii rek moom met a ah, kii booy remarque ma sa waalu ndeysaan ronk woo na ma Euh, di ma di ma ko laaj ma ne ko noonu la demee de ñoom ñëpp ñu ngi ko jàllataan waalo waalo gépp Souleymane Diaw ñoom ñëpp woote nañu di daal di ko jàll lépp mooy jàmm ji rek jàmm ji nu seq ji rek ak Mohamed Ali mi tey mën naa ne Mohamed ku sonnoon la ci xale yi écrit waalo mën naa ne sax Ali bi muy ñëw écrit waalo man Ndiaga Sarr man mii maa ko dugal écrit waalo ko noonu kon yëpp nun dun doon boole boole nun duñu boole mais tàggale wunu nii rek nun dundee ba yàlla def nii mu def jërëjëf noo ko bokk. ba ma ñëwee fii war na mat ñoo ngi mujj ci ñeenti fan ñu si suñu benn doomu nijaay bu feebar bu nekk euh, Suisse Jëmil Thiam mun ma Jëmil dafa feebar na ko yóbbu nuñu ko mun ma na mu dee ma ne ko ak dee jotawul dara moom si boppam mun a nit de ku fi jógee yàlla nga am ñu la toppatoo sa gannaaw ma ne ko loolu rek moo jar ñaan barki démb rek war na mat ñeenti fan war ñu waxante moom mu wax Jëmil dafa feebar na ko fa feebar bu doy waar ma ne ko nag àddina yaram mu tooyee ànd waaye nag ku fi mënti jógee rek am ñu la toppatoo ma ne ko ruudu feebar feebar jotul ak dee dara barka dem yi see waxtaan nii ku baax dem na ku woyof. yaay booy ñëw lay nuyu nga baal ñu fàttali ñu tur bi tuuti. Ndeye Rama Keita jigéenu baax la du ma daw benn yoon bëgg ma nag ba démb fii ma di ko taasul baal la day nit koo xam ne dafa nekk ci koñ bi nekkin fi nekkin boo xam ne nekkin bu rafet. bëgg jigéenam bëgg koñ bi courant bu fi duggee Balla gay la ndox bu fi duggee Balla gay la politicien bu ñëw fii bu laajee Balla gay mu ne samay jigéen a ngi nii Balla gay amu fi manloo amu fi xaaroo ñépp benn la leen def ñu koy ñaanal yàlla bësam bii tey yal na ko yàlla xare àjjana ñu koy ñaanal ni ñun ñoo ngi soog a ñàkk ku ne jóge na fi waaye ñàkk na ñoo ngi soog a ñàkk ñu fi toog ñëpp nag ay jigéenam lañu man nag kóllëre gi mook sama baay la woon waaye man tey maak moom la. bàyyiwuma seetaanu ma su ma xëyee man ak moom ak Abdou Tall ñooy bokk toog di ndékki di naan ataaya jabaram caane wala kumba caane di ñu xiimal barke Rasulullah dem gii mu dem nag ñun la demal jigéenu quartier yëpp a ngi nii. yal na ko yàlla xare àjjana fa mu nekk yal na ko yàlla yërëm li may wax Ousmane Diouf mii mën na koo teewee heure boo fekk Balla Gaye ki jigéenam amu fi xalloo amu fi mballoo tey fu làmb dem waa Balla ko fa yóbbu barki Serigne Babacar Sy ñu koy ñaanal rek yàlla may ko jàmm may seen tele bi jàmm defal leen jàmm yow seen jiili yal na leen yàlla defal jàmm teew bi ngeen fii teew yàlla yàlla bu ngeen teewatul li mel ni di ko teew ci bànneex ci barki Rasulullah yàlla kenn la yàlla kenn rek la jërëjëf sëñ Jili yàlla seen jërëjëf jërëjëf euh, mbokk yi ba tey soxna Fatima ñëw fii ci kenn euh, àdduna ki nga xamante ne Mor Pierre Balla Gaye euh, yan témoignage nga ñu mën a jox ci loolu. jii maa ngi leen nuyu di nuyu waa Wassare suma sit di nuyu uh, Bas kon ni ma ko waxee rek l'infatigable di uh, di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax uh, yàlla suñu borom dee la njëkk bind ka dund. Père Balla nag kenn ku rek mën na koo jaale boppam ndax su ma juumul ñun ñoo fi àndoon man ak yow ak Bas bañ ko fekkee fii fekk ci benn situation ba nga am lu ay kàddu yow sax luñ ko waxanteeg moom ndeysaan mu nekkoon nag feebar feer bu yàgg boo xamante ni mën nañoo wax ni yàgg na. Ah, dañ koy jaale waaxlu làmb yëpp kenn ku nekk mën na koo jaale boppam daal ndax uh, tey wax dëgg yàlla am na lu mu fi bàyyi ndax tey ku dem ba créer roi des arènes muy Balla gay 2 ndax uh, Balla Gaye sànq dafa wax wax ju rafet que ni bu fi kenn def dara lépp man maa koy def ko loolu mooy wan ne am na lu fi créer am na lu mu fi bàyyi ba kooku mën a jël uh, lépp loo xam te moom mooy responsabilité am pour mën a def lii di ko jaale ñëpp daal yow tamit ma la koy jaal di ko jaale waa Wassare di ko jaale ñëpp. ban relation nga amoon moom suñu papa la ko relation bi ñu amee ak yow rek parce que doomam ñun suñu xarit la mu Youssou Ndour te Père Balla mën naa wax ne ñun ñëpp mooñ tàggat ndax heure bu ñu ko soxlaa waxtaan ak moom ci làmb dafay dafay d'accord ñu seq moom relation boo xam te ne même bu dul làmb di ñëw këram naam nag gëj nañ koo gis waaye wax dëgg yàlla dañ doon am ay information te su ma juumul amoon na jour boo xam te sax waroon nañ koo jël ñun waa wasaare mais liñ naan yàlla moom moo ko tuddul di ko jaale ñëpp rek yow tamit ma la koy jaale ndax xaritu ñëpp la woon